Euh, dama lay waxal benen misal kep ko xamne ne yaa estati góor jigéen sa téléphone safara nga jëm yaa estati gor jigen kep ku mos def estati gor jigen mo xam murit nga wala tidiane wala julit nga Ya xam ko meuna dox donte do gor jigen istate nga gor jigen rek safara nga dem parce que yaangi yaangi yaa gor jigen safara nga dem kep ku mës a dugg ci youtube bi gis ben pap mbay mu istati video nga sifur ko safara nga dem neex na ka safara nga dem kep ko xamne yaangi yaa gor jigen ta jigéen do donte doona góor jigéen boo safara nga dem bo demee safara dafa am appartement R plus bo xamne ni fa la yàlla taasafara ci bo duggé à gauche gaay yi stati góor jigéen ñoo fay dëkk benn appartement bi nek à droite gaay yi vidéo youtube gor jigen ni ñom pamba yak ñi mel nonu ñu ñoo fay dëkk boo yéegee premier étage à droite gaay doyel gor jigen nga xamne ne wéxu ñala ñaa mando so nekku ci ñooñu ñu fay dëkk. ñi sétan ak ñi sétan vidéo di di di. di apprécier nan amit nan nan apprécier nañ ci vidéo bi. Mm-hmm ñoy ñep ñoy dekk premier étage à droite ñi nga xamne nak ñoko gis war ci mëna wax war ci mëna wax mu dañ waxon ci ñu dekk à gauche xamne bo xamne xam salle bu re re re re re hercule la mo nga safara mala yef keur kër la gu ne safara. sëñ Moustapha dogu ma man lima ma jaaxal mënoo di seetaan mbaa ci yenn yi nga bëgg am lo ci mëna xam comme information et duma ko ki ndax ñoy ñep dëngalé na lim lool fan fan lañ ko bind dañ ko bind ci téré wala. yalla sun borom bi subhanahu wa taala yalla subhanahu wa taala mo re bu góor yeen yàlla nee na moom képp bi yàlla ne mu ngi rëbb góor jigéen xam nga rëbb mooy topp dara loo xam ne foo ko fekk rek ko loolu muy rëbb rëbbam yàlla nag wàcc na ci mbooleem koo xam ne da ngay doole góor jigéen te képp kuy statut góor jigéen yaa ngi koy yooleel képp kuy sifar bi ko apprécier yaa ngi koy képp kuy apprécier ni góor jigéen di doxalee yaa ngi koy yooleel ñooñu ñëpp nag laa la ak góor jigéen moom man ba léegi waxaguma góor jigéen moom ñooñu laa wax ñoom ñëpp safara lañ jëm ñoom seen logement safara kañ mom maa la wax li muy mel appartement la ñom ñooy dëkk premier étage deuxième étage à gauche à droite ñu ñu fay dëkk xëlëk bu yàlla àttee ñëpp ba ñëpp nak ñi dem aja dem aja ajana ñi dem safara ñëpp daan nan sàngara wala tuya yàmbaa dem ak ñi nga xamné def yalla gërëmu seen lenn ba dugg safara paré góor jigéen nekk ci ñu dogu jog ñi sétan ya xam Amérique lañ la sul ya xam Inde la fu ñu la mën a ngay góor jigéen bu ñëpp duggé aja na ngi dugg safara ñëpp yalla ne waw ana sama gay jog len taxaw yéen ñi ma defon goor ngeen bëgg len nek go jigen ngeen bëgg nek jog len taxaw gay bokk seen bouche ni a gauche ñu ko bokk droit go len ko bokk gauche iqra kitaaba kafa bi nafsika yawma hanika sama la wax seen téere yi gauche lañ koy ko maanaam gauche lañ ko gauche lañ koy bokké yalla na jog len taxaw ñu taxaw yàlla na leen souterrain la souterrain xam nga ñi doon ñi doon stade goor jigen ni ñom premier état lañ dëkk souterrain na ñu góor jigéen ñoom ñu fi ñu dëkk souterrain la mooy ci xal yi lañ dëkk ñoom fa la ñuy dugg dañuy dugg la koy seetaan ak ñi jëflante xam nga xam nga li ma lay wax nii. Mhm. yéen yàlla la bëgg wax yàlla dafa alagoon askanam bi dafa leen alagoon ndax lan ndax góor jigéen yoonu Jibril na ko demal boo demee. dina sa mbagg mi da nga dippati suuf si la feete woon kaw daal na feete suuf ñëfale ko yàlla nee na nag lam duma xoon ti yàlla maanaam xetu yonti yàlla loolu ba léegi ku ko def mu duma la ñun nag dafa ñu rusalee kan yonent bi sallallahu alayhi nag lu ñu rusalee yonent bi yonent bi góor jigéen yeeg ñeen di istateeg saa ñu tubag ñëpp safar lañ jëm kenn mu ci dara xamut nag koo xam ne nag mën ngaa istate góor jigéen wala nga di ko seetaan surtout bi di apprécier xamoo mënoo xam sëriñ wala ñaan gu la musal safara mëno ko mom bi dal mom di nga bo dé bo dé rek boy dé rek dem safara. takat yow am gor góor jigéen ñi góor jigéen ñi xam yow yow. jërëjëf ñu ko. ngi nuyu di nuyu wa aduna di wax ne inshallah taala ñu ngi ñaaree ñep jamu di ñaan yalla sun borom bi subhanahu wa taala góor jigéen yeeg ñeen istete ñëpp yalla na yàlla suma gindi leen dimbali leen Sénégal nag saage fi ndey moo fi gën a wóor dagg alxuraan moo fi moo fi gën dagg fi ay alxuraan wala nga indi fi hadis indi santaram moo tax man dama bëgg sax di def émission dagg ay wala indi hadis parce que problème mooy ñi ngi koy waxal gëmuñu ko comme gëmuñu ko nag naa làkk olof bu leer nañ ñu koy képp ku may jàng ku jàng alxuraan di ma siifu dina ne dama nekk dëlle mu ci alxuraan problème bi nag mooy góor jigéen ñi dañuy sotaati ku génn vidéo ne góor jigéen ñi gars yeneen gars yi di sot kon nag ñu ñi nga xam ne ñoo bokk daara ji bokk daara ji bokk tariq bi bokk diine yi bokk lislaam bi nañ bokk mango doon bi doon cenn luñ mën ci surtout ci ñu ñaan ko yàlla yàlla fegal ko ko jigéen ñëpp ñu dugg safara siiw du lu yëngu yëngu